people foo nekk. salaamaaleykum <laughs> waaye temps yëpp maa ngi ci town bi way maa yoon côté yëmbal quoi <laughs> son papa moo ne ma naa laqatu xam naa yu bëri xamewu leen ma <laughs> dama jeex tekk ñuul këkk léegi laay li mais yàlla baax na maa ngi daan sama doole maa ngi ñafe quoi maa ngi ci benn eh, atelier terre bu nekk yëmbal ñoom Baara Sall quoi fa laa nekk di ñaw di daan sama doole <laughs> des fois ma ànd ak booy nekk Décor TFM ñoom Paul yooyu ñoom yox gars yi yóbbu ma dem ay chantier quoi mais ba léegi xamewuñu ma <laughs> oui bon dama ñëw pour wax leen ne ku am pajaas booy jaay war a lal bu yàqu gaz bégu gaz ak fer à repasser yooyu yëpp dama koy dóor quoi <laughs> non bilaay xam nga ku rawale dëgg doo taf yenn job yi temps yi sax commencé naa def ay lakk beñe beñe dugub beñe yooyu yëpp quoi <laughs> waaw yow maa ngi sant ñëpp ah, di gërëm ñëpp quoi xam naa ne temps yi ma ngeen ma trop mais man mu leen gëm ne man la Karim maay wax a yéen dama jeex takk ñu kokk <laughs> waaw yow Macky Sall mu mën na doon dofloo quoi naan daf may audité mais ku ñuy audité day fekk nga yor dara maa ngi nii <laughs> journaliste yi tamit dañ ma bàyyi carrément tuddutuñu samay affaire ñu ngi wax ay eh, yeneen affaire bàyyi ma quoi fàtte ma <laughs> waaye yow pourtant temps yi sax maa ngi woon ci jaayu naanaa bi côté Kër Massar noonu ci angle bi mais gars yi xamuñ ma <laughs> uh-huh. eh, man la Karima nekkoon quoi ministre yàlla li muy def rek yàlla ak dogalam waa yow <laughs> xam naa xàmmeewu leen ma ne ba tey gëmu leen na Karim la Eh, sama yaay moo ne ma góor dëgg da ngay liggéey pour mën a jàppale sa bopp quoi waaye sa maa doon lang ngoro yoof parce que asini benn da lay jaar si Kapor mais gars yi xam ñoo ba tey quoi non àdduna moo garaaw am xaalis xees ñu dàq la nga ñuul waaye mais ba tey rek waaye mais boo leen gisee kuy wut kuy defar làmp yooyu quoi bunt bu yàqu douze bu fatt foos bu ñuy ŋàcc ak yooyu quoi man la Karim non yàlla moo mën a yàlla moo mën a organiser quoi ku ma waxoon dinaa toog nii bay wax samay soxla laay laay sama portable sax numéro gars yi ma amoon yëpp dem nañu temps laa ko jaay maquette Colobane dix mille benn portable ndaw pour régler samay problème eh. xam naa da yaakaar na may kaf nii mais bilaay walaay taalaaya ah. <laughs> ah temps it sonn naa trop mais gars yi mënuñu ma xàmmee ehe ehe waaw yow dama naa seeti yenn mbër yi sax pour mu leen jàppale seen cumukaay bu ñu demee ma saison bi ibigul quoi <laughs> eh, eh. waaye ngi nii rek de leen nuyu Sénégal ku nekk sa tur ak sa sant quoi sama papa vraiment manqué na ma trop parce que mu ngi France maa ngi fii mënu ma génn sama passeport yëpp la ñu nangu ma ñëwoon fii nag xam naa di wax ak yéen balaa ngeen gëm nag ma dem quoi mais bilaay man la Karim waa yow ay maa côté Médina di toj ay gel topp ma di ma wax yow da rafet mais da nga mel ne da nga lakk ma leen xam naa bu leen xamoon ki ngeen di waxal <laughs> waa yow dëkk bi dafa doy de seetetetet mais ku ci am liggéey booy def sa gàlla rek mun nga ma woo da ngay woo allo le 18 bu yëmbal sapeur pompier yi parce que fi ma luwee ak sapeur pompier yi ñoo jàkkaarloo quoi ñetti mbaar benn chambre bu am douche ak waañ ak ndaa ak teen maa ngi fay 8500 par mois <laughs> benn kel bu ñu naan xoyaan laay génnal foofu xoyaan <laughs> ak nogoy <laughs> yàlla moo mun a soppi doomu aadama quoi wala Karim Wade Wade Ndiak Fara Wade Ndiak Daara Wade Ndiak yokku ma ca sangum xeer xool leen fii dama xeesee ak ni ma ñuulee yàlla moo mën a natt jaamam quoi tey nga torox suba nga tekki tey nga tekki suba nga torox maa ngi nii dellu quoi garage Géejawaay laa yemoon jaar wakaam ñu ne ñoo fii TFM la man a xaaram wàcc fi wax sama soxla ay eh, Dakar eh, Dakar eh, Dakar Dakar nga rokaam yokk xëy na mun naa yëpp rek yëpp benn ancien militant bu ma xàmme quoi <laughs> yéen yàlla defal jàmm man la Karim <laughs> ci àdduna yàlla xanaa ko ñu gis ko torox yoratul dara duñ la audité <laughs> yaay yooyu yaay billaay dofuma man la Karim dama ñëw rek